académique bu Almadies moo daal di sargal ñaar téeméer ak juróom fukk ci ay meilleurs élèves am waaye tamit di sargal ñaar fukk ak juróom ci ay enseignants yoo xam ne dañoo war a retraité rax ci dolli juróom-ñett enseignants ak ay parents d'élèves yoo xam ne dañoo am engagement ci li nga xam ne moo di éducation. sargal euh, élèves yi élèves yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci école yi sargal également euh, suñu enseignants yi nekkoon ak ñun nga xam ne ñoo war a résultat yi te dem retraite sargal également. enseignants yi nekk encore en activité te farlu lool ci liggéey bi sargal ay parents d'élèves yoo xam ne dañ leen a ràññee. atum ren bi nag numérique nañ jëloon dal di koy def seen thème suñu sukkandikoo ci directrice bu inspection académique bu Almadies moo ngi xamle ni numérique dafa am ay opportunités yu bari. numérique dafa dafa jàppale ah jàngalekat bu baax ci liggéeyam. app dafay permettre ñu def ay recherche dafay permettre également euh, ñu jox ci ay xale ay exercices. dafa bari njëriñ. donte njariñ gi mu làmboo Oumou mari Beye Fall moo ngi xam le ni kat réseaux sociaux yi li mu mën a yàq ci gune yi bari na lool mais euh, njëriñ yooyu itam dafa am ay ay yàqu-yàqu yoo xam ne mun nañ ko mun na ko indi su fekkente ne jàngalekat bi ak parent bi ànduñu taxaw ci jàppale xale bi ci naka la koy utiliser. ci loolu moo ngi wëy di ñaax parents yi ngir rek ñu gën a mën a surveiller seen ay doom a ci yi les réseaux sociaux. ñu passé ñu profité ci lancer message enseignants yi lancer message parents yi ci naka lañu war a taxawoo xale yi d'abord ci ñu wàññi. pourtant bi ñuy nekk ci ci ci ci ci ci ci ci internet bi ak. inspection académique bu nekk foofee ca Almadies nga xam ne dafa ëmb. ñaat téeméer ak juróom fukk ak benn ci ay école mu daal di amal fête boo xam ne dafa riche lool en couleur xale yi daal di sol ay tenues traditionnelles ngir mën a def ay prestations ci bépp ethnie waaye tamit fecc li nga xam ni moo di ay majorette fête bi daal di jeexee ak ay cadeaux yoo xam ne jox nañ ko meilleurs élèves ci loolu xale yi di woote rek li nga xam ne moo di jàmm ci réew mi.